asalaamaaleykum mbokki déglukat yi mu ngi leen di nuyu ci turu yàlla mi bëgg ñépp topp yoonu njub bi mu tëral te mucc am nanu mbégte ci li nu mën a tasewaat ak yéen fii di àddu ngeen di teewlu seen émission yoonu njub ci émission bi weesu tàmbali woon nanu menn njàng ci mbirum mucc gi noonu gisoon nanu ne nit dafa am ñaari jafe-jafe benn li nu am te bëggunu ko mu di sunu bindu bàkkaarkat ñaar li nu amul te saxla ko lool mu di ak mat gisoon nu it ne yàlla moom sàkk na pexe mu nit mën a mucce ci bindu baakaar katam bi ko jëme ci safara abadan kon léegi nu fas yéene wéy ci mbirum mucc gi ngir gën a leeral ni yàlla amale woon pexe mi mu tëral ngir nu mucc ci mbugalu safara dañuy wax naan jàpp sama loxo ma gënal naan ma yoon waa ngee muy wax ju mata seetaan képp kuy nit bés bu set mucc ngay ñaan mucc ci lii ak lee ci nangam ak nangam ngay def lépp ngir mucc nekk lu jàppandi ci yow waaye mucc gi bawoo ci yàlla jàppandi na ba noppi ku nekk mën na cee jot wante nanu bàyyi xel ci ne mucc gi ak ngëm ñaari mbir lañu yu seen diggante ratax lool ba tax dunu mën a wax ci mucc gi te waxunu ci mbirum ngëm moo tax dañuy jëkk a seet li mbind mi wax ci ngëm laata nuy wéy kàddug yàlla dafa nuy xamal ne ngëm mooy mu wóor nu ne li nu yaakaar dina am te it li nu gisul nekk na xam ngeen ne ku nekk am na lu mu gëm walla yu mu gëm ba ci sax ñiy wax ne gëmuñu dara ndaxte seen ñàkk ngëm googu sax ngëm la ku gëmul lenn lu jafee gis la wax ji kay mooy lan nga gëm walla kan nga gëm yow mi boroom diine nag wóor na ma ne boo doon tontu ci laaj boobu danga naan yàlla laa gëm waaw loolu kay lu baax la ndax kàddug yàlla nee na ku amul ngëm doo mën a neex yàlla waaye gëm yàlla xam ne kenn la doyul ngir nga mën a mucc mbind mi nee na jinne sax gëm nañu ko ba tax ñu tiit bay lox ngëm nag day am fu mu wéeru fa ngay wekk sa ngëm ba mën caa jële mucc ci safara moo jara seet ci misaal su ma bëggee dem sigicoor ma àgg gaaraas fekk fa rangu risaatol ak euh, bu sigicoor ñu ne ma rang bi mooy dem sigicoor ma bàyyi fa rangu sigicoor bi dem ca rangu risaatol ba dugg woto bu jëm risaatol ma gëm ne woto bi dina ma yóbbu sigicoor nanu waxante dëgg lu mu yàgg yàgg duma dem sigicoor mukk ak lu sama ngëm mën a dëgër woto tool bi duma yóbbu sigicoor mukk noonu la deme ak muccuk yàlla gi menn pexe mucc rekk la yàlla fàggandikul doom aadama yi mooy wenn yoonu mucc wi ci yeesu kirist mi yonent yépp doon yëgle ak dikkam soo ko fi nee tegg nag na la wóor ne yàlla amalu la meneen pexe mucc kon nanu dellusi ci mbirum mucc gi bu ñu nee mucc xel yi dañuy faral a dem ci ñaari wàll wàllu saayir ak wàllu baatin ci wàllu saayir baatu mucc dafay tekki maanaam ab safaan jublu la waaye nga rëcc ci ñu naan moom de mucc na ci musiba sàngam ci misaal bu jigéen wasinee am doom dañu naan diw de mucc na maanaam musiba mënoon na ko fekk ci wasinam waaye yàlla defal na ko ci jàmm mucc na ci wàllu saayir loolu mucc la dundu doomu aadama ay safaani safaan mën na cee tàbbi mu mucc ci yii ñàkk mucc ca yee woowu xeetu mucc wuute na ak mucc ci wàllu baatin ci wàllu baatin mucc gi mooy tekki rëccug nit ci safara si yàlla waajal seytaane ak i gaayam safara ñépp a ko yelloo ndax bàkkaar bi nu donne ci sunu maam aadama ma seytaane daaneeloon mbind mi nee na bàkkaar ci kenn nit la jaar dugg ci àddina indaale fi dee te dee daldi law ci nit ñépp ndaxte ñépp a ba jotatiñ ci ndamu yàlla waaye jëfu keneen nit ka maanaam Yeesu Kirist moo ko suul ba tax ñu bare mucc ni ngeen ko dégge aadama moo jëkk a bàkkaar ba tax dee tàbbi ci àddina law ci nit ñépp waaye yàlla miy boroom yërmande fàggul nanu yoonu mucc kon yaakaar ju wér am na ndaxte jëfu Yeesu Kirist mi dee ca bant ba moo suul jàddug aadama noonu képp ku ko gëm dinga mucc ci mbugalu safara ndaxte gannaaw kirist dee na ngir jot leen yàlla ci wiyoom mën na leen a àtte ni ñu jub ci dara képp ku ko gëm deesu la daan waaye ku ko gëmul daan nañu la ba noppi ndaxte gëmuloo ci turu yéesu benn musalkat bi am kepp rax ci dolli yonent yépp seedeel nañu ko ne ku ko gëm yàlla dina la baal say bàkkaar ci turam ndax mucc amul ci keneen ndaxte ci ron asamaan amul weneen tur wu ñu maye ci nit ñi wu nu war a mucce ci loolu yow miy déglu te bëgg mucc ci mbugalu safara ëllëg xamal ne danga war a gëm mucc gi nekk ci deretu yéesu ja tuuru ca bant ba ngir raxas la ci bépp bàkkaar mbind mi nee na soo waxee ak sa gémmiñ ne yéesu mooy borom bi te nga gëm ci sa xol ne yàlla dekkal na ko dinga mucc ndax xol la nit di gëme ba tax mu jub ci kanamu yàlla làmmiñ it la nit di waxe ne mu ngi ci kirist ba tax yàlla musal ko képp ku ko gëm sa yaakaar du tas mukk bu wolof njaay ne ku nekk ak sa bàmmeel am na dëgg ci nekk ndaxte boo deewee lenn walla kenn du la fa fekk di la difi mbaa di la ramu ndaxte kooka boppam lay tal kon kooku nu muy ramoo keneen li wér te kàddu yàlla wax ko daal mooy li la mën a defi tey jii ak fii rekk nga ko mën a sàkkoo te loolu moo di mucc gi nekkul feneen fu dul ci deretu Yeesu Kirist ji tuuru ngir faral la say bàkkaar bu la ko kenn xañ naka muccug yàlla gi ci àddina si rekk lees koy amee bul xaarati bul déglooti ki lay fàbbi ndaxte bés dina ñëw yow rekk ak sa bàmmeel bu boobaa nag réccu dina fekk jëf wees bés yéesu dafa nettali ay taalibeem ab léebu ne dafa amoon boroom alal juy sol yére yu rafet te jafe tey dund bés bu set dund gu neex fekk miskin mu ñuy wax lasaar daan tëdd ca buntu këram fees dell ak i góom te bu sañoon di lekk ca desiti ñam yay rot ca lekkukaayu boroom alal ja xaj ya sax daan nañu ñëw di mar ay góomam noonu miskin ma dee malaaka yóbbu ko ca wetu Ibrahima boroom alal ja itam dee ñu suul ko bi ñu koy mbugal ca safara mu teen seen fu sore maam Ibrahima ak lasaar ci wetam noonu mu yuuxu ne maam Ibrahima yërëm ma yebalal lasaar mu sëpp catul baaraamam ci ndox seralal ma sama làmmiñ ndaxte maa ngi sonn lool ci safara si Ibrahima ne ko sama doom fàttalikul ne jot nga sa bànneex ca àddina fekk lasaar dëkk ci tiis looloo tax xolam sedd fii yow nag ngay sonn rax ci dolli am na kàmb gu xóot sunu digganteeg yéen ba tax ñi bëgg a jóge fii jëm ci yéen walla ñi bëgg a jóge foofu jëm si ci nun duñu ko mën noonu boroom alal ja kon nag maam maa ngi lay ñaan nga yebal lasaar ci sama kër baay ndaxte am naa fa juróomi rakk na leen artu ngir ñu bañ a ñëw fii ñoom itam ci bërëbu metit bi Ibrahima ne ko say doomu baay ñu ngeeg yoonu Muusa ak téere yonent yi nañu leen déggal boroom alal ja ne ko déedéet maam Ibrahima waaye su kenn dekkee dem ca ñoom dinañu tuub seeni baakaar waaye Ibrahima tontu ko ne suñu déggalul Muusa ak yonent yi kon ku dekki sax du tax ñu gëm mbokki déglukat yi boroom alal ji ci léebu bii ku tegoon boppam boroom diine la ku baaxoon ci bëti nit ñi te ñu wek ko waaye li nit ñi fonk yàlla sib na ko bi mu deewee tàbbi na safara waaye nekk boroom alal du looloo ko taxoon a tàbbi safara li mu nekkoon ku bëgge ba amul woon sax xolu gestu ñu ndóol ñi ci wetam mooy li mbind mi ne am na ñuy wut alal ba moy yoonu ngëm waa ju ñàkk ji nag moom bi mu deewee mu tàbbi aajana waaye moom it ndóol taxul woon mu tàbbi aajana dafa fekk mu nekkoon ku gëm yàlla te gëm li mu wax jaare ko ci téere yonent yi mu nekkoon it ku gore ci biir ñàkkam soxor soluwu ko woon ba tax muy bañ a gëm yàlla su ko defoon li wóor mooy moom it doon na tàbbi safara ndaxte yàlla du gënale kenn noonu ba boroom alal ja nekkee ca safara muy tinu moom mi daawul yërëmaate léegi mu ngi sàkku yërmande waaye booba reccu fekk na jëf wees mbugalu yàlla ne woon na milip ci kawam yow miy déglu itam mën na am ngay borom maqaama di ku am diine waaye xamal ne boo sàgganee ba sab àtte taxaw kenn du la mën a tinul fii ci àddina rekk la njégalu yàlla jàppandee du feneen léegi nag ba borom alal ja gisee ne amul menn pexem njégal foofa mu xalaat njabootam ga mu bàyyi gannaaw mu ne maam Ibrahima nañu bàyyi lasaar mu dem artu ji leen mu waxi leen ni safara mettee ndax ñu moytu fee ñëw waaye yonent yàlla Ibrahima xamal ko ne waa àddina soxlaatuñu beneen artu bu gën a jamp bi leen yonent yépp jox ba noppi te ñu sàggane ko bañ koo gëm ndegam yonent yi lañu dégluwul ku dekki sax du tax ñu déglu ko te muy dëggit te ba tey noonu la nit ñi mel xoolal mbir yéesu Kirist dekki na ñetti fan gannaaw bi mu deewee mu dëppook ni ko yonent yi yëgle woon waaye terewul ñu bari wedd ko wante li wér mooy soo bëggula fab mucc gi la yàlla di may nii tey jii bés dana ñëw nga rëccu ko bu boobaa nag dara dootul des lu dul mbugalu safara dafay fekk muñuk yàlla ak waxtu yiwam jàll kon sama waay xamal ne yoonu mucc wi mooy gëm yeesu te di ko topp moom kepp waaye yoon wu xat la wu fitna dul ñàkk yéesu nëbbu ko woon ba tax mu ne def leen sem kem kàttan ngir dugg ci bunt bu xat bi jaar leen ci bunt bu xat bi ndaxte bunt bi ak yoon wi jëm sànku yaatu nañu te ñi ci jaar bare nañu waaye buntu mucc gi xat na te yoon wi jëm kaw sew na te ñi ko gis barewul man maay bunt bi ku jaar ci man dinga mucc ci lu wér bëgg-bëggu yàlla mooy ñépp mucc wante bu fajkat seete sa wér gi yaram jox la garab soo ko jëfandikoowul du jëriñ dara ci sa tawat ni nga mën a jële mucc gi la yàlla jagleel ndegam yitteel na la jëkk la nangu ne yàlla ku sell la ba tax na ku sellul du ko mën a jege nga gis sag ñàkk sell ni képp kuy nit ndaxte amul nit ku sell ci bëti yàlla mi wax ci kàddoom ne ñépp a baakaar ba jotetuñu ndamam kon leer na ne pexe mucc mu bawoo ci nit amul gannaaw loolu nga gis it ne yàlla soxorul bay tëj buntu tëj palanteer sàkk na pexe mu ko nit mën a jege pexe mi moo di deretu Yeesu Kirist ji tuuru ngir musal képp ku ko gëm ni ko yonent yi seede noonu boo gëmee yéesu musalkat bi dee ca bant ba te dekk ca ñetteelu fan ba nga gëm ne tuur na deretam ngir musal la ci mbugalu bàkkaar xamal ne am nga mucc gi te ëllëg doo tàbbi safara mbokk yi nanu déglu bu baax li ndawu kirist di pool bindoon ci mbirum mucc gu mag gi yàlla bëgg a may képp ku ko gëm mbind mi nee na mbokk yi sama coobare xol ci bànni israel ak sama ñaan ci yàlla mooy ñu mucc seedeel naa leen ne ñu farlu lañu ci jaamu yàlla waaye seen njaamu àndul ak xam-xam xamuñu yoon wi yàlla tëral ngir nit jub ci kanamam waaye dañoo wéy ci seen pexey bopp ba tax ñu bañ a nangu yoonu njub woowu yàlla tëral ndaxte ci kirist la yoonu muusaa dëppe ba tax ku ko gëm dinga jub fa kanam yàlla ndaxte soo waxee ak sa gémmiñ ne yéesu mooy borom bi te nga gëm ci sa xol ne yàlla dekkal na ko dinga mucc ndax xol la nit di gëme ba tax mu jóg ci kanamu yàlla làmmiñ it la nit di waxe ne mu ngi ci kirist ba tax yàlla muusal ko mbind mi dafa wax ne képp ku ko gëm sa yaakaar du tas mukk ndax ñépp a yem fa kanam yàlla mu yawut mbaa ku dul yawut ndax kenn rekk mooy sunu boroom nun ñépp te ku yéwén la ci képp ku koy ñaan ndaxte bind nañu ne képp ku woo boroom bi ci turam dinga mucc kon xarit yi fii lañu yem tey ba beneen su ngeen bëggee xootal seen xam-xam ci mbirum mucc gi mën ngeen nu bind ñu yónnee leen benn téere bu tudd tout ce le dit te du ngeen ci fay dara sunu adresse mooy yoonu njub boîte postale 370 yoonu njub BP 370 Saint-Louis mu ngi leen di bàyyee aaye bi ci mbind mi naan soo waxee ak sa gémmiñ ne yéesu mooy borom bi te nga gëm ci sa xol ne yàlla dekkal na ko dinga mucc